العروق وثبت الأجر إن شاء الله Africell ñoo leen doon may seen programme dog bi di leen ñaanal koor gu yàlla nangu Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasul. asalaamualeykum mbokk yi ñu ngi leen a fii si suñu programme ndogu ba tey dinañ wax um, you are welcome to the show uh, maa ngi fi am docteur Sala ak oustaz Dawda Jaabang uh, uh, wala bi jam bi pour que kacaami ba dendin suñu teew la docteur fu mu nekk nii nag balaa ñoo dem ak Skype call bi ñu ngi try pour connecter suñu call suñu guest bi Skype guest bi in US so mun nañoo continuer suñu waxtaanee health bi parce que nuru na lu interesting. waaye yaa ngi doon diabetes ulcer ak ban façon ngi feebar lañ amaat um, mic bi barete yi ñoo xam ne tam am high blood pressure ñu am pressure yi dañuy tamit pressure mom or daf koo dimbale <laughs> waaw ndigte pressure mom soo wàññee yena lekay lose weight waaw sa pressure dafa uh, improve just like diabetes type 2 mm. so di nga gis ne am nañu bari weeri koor seen pressure daf dee daf dee tane bu baax. ok dina dem ba tollu foo xam ne sax garab yi da nga koo mun nga koo wàññi. ok docteur fu mu ah. nekk nii suma gars yi ñu ngi maa signal. Mm. Mm. Ah, foog naa seen skype guest bi wat nañ ko am online hello. hello. hello fat. Yasin. yes. yaa ngi ñoo dégg. waaw maa ngi leen di dégg. foo nekk nii. Actually, dama just step out. No, no, dama step out sama kids. Why are you from ban state? Ah, uh, maa ngi Atlanta. Atlanta. Wow. Ok, Maka povo. ah fii mu ngi nii rek alhamdulilah ma ne ko alhamdulilah ak weeru koor bi. ok léegi naka or bi or bi fii daal macha allah ma ne or Nung si ko de parce que dafa bari ay. ay lal dafa bari ay lal. Um, yes, hindi mo Mane ko bari na ay Gambian, bari na ay Mane bari na ay Gambian torop ñoo xam Waaw mane na mën nga sa vidéo bi on ñu gis la Waaw Waaw xar ma def Waaw def ko on ñu gis la waxtaan ak yow Hello Yes Yes Fatou Okay ñu la gis léegi Nakam yang ngi si moto xanaa Waaw maa ngi si moto nii Okay xanaa dogaguloo Um, Dr. Dutta would like actually fee, um, just now I, let's say, five hours more. Five hours? Ñun fu mu nekk ñu ngee dog. Oh oh. Pour naa network bi la. Ok, dinañ try, dinañ koy bugg di try. Ok, Yacine. Ñu ngi laa dégga. Yacine. Naa. Nan nga fa nekkee liggéey bi ak or bi parce que xam nga bitim réew nekk na place boo xam ne kenn du foog nga jóg liggéey na nga fa nekkee ak or bi. actually um, fii nag métti na nag parce que or bi da ngay da ngaa da ngaa def liggéey that is really extremely hard parce que da nga am pour putam ak ñaari yëpp. or lucky you have a place to play and work so lucky wutee you cannot play and work. it is extremely hard but uh, jullit yi daal ñu ngi try macha allah. ok loolu macha allah. I took a break from work just to fast. just to fast so dafa mel ni yow doo dee liggéey. da nga jël one month off. dama jël month one month vacation off pour just pour ma or mun a focus parce que yenn liggéeykaay yi duñ nangu nga julli te loolu dafa difficult ak waaw lu waral loolu lu tax nga foog na ñu ñu ne aaye loolu. ah, ah parce que fii tamit ma ko lan lañ la jox ban reason lañ la jox ne warloo faa julli. well actually in most cases um, du dee am place si julleekaay. boo xam nga doo 30 minutes break naa am in a day so 30 minutes break boobu noonu soo waree dajale sa julli yëpp nga fay ko sometimes du du easy daf dee taxarit am na ñoo xam ne tam shift yi ñoo liggéey tamit easy wut ay night shift dañoo liggéey te si day bi moom uh, or yaa ngi war a dog ay heure quoi na ñoo xam ne seen bi la ñoo ñoo àgg seen cër seen biir moto yi la ñoo ndogoo hmm. daal da fas yéene bàyyi liggéey bi Roberto called Vijay. from because I'm lucky enough to have vacation from my work. Okay, that's very good. Legi onyan nga bugan nuyu fi si Gambia. Ak si bambor nga joge? Actually, man magi nuyu Ajiatis and like I'm um, uh, saying hi to the Chainmakers team. Like okay. um magi nuyu si Mayais. Okay. Wala. Wala. Ba pare tamit comme yeen ñep daal you're with Mangla Ndokale because really you've contributed a lot to my life. So really, Mangla Ndokale Buba because yeah, I'm in television. Woman, I can't Wow. <laughs> Eh, mashallah, I have that like I have that that inspiration from you. So like I'm forever grateful about it, and we hope to come back to Gambia and work for the Gambia. Okay. Oh, jërëjëf waay that's so touching thank you very much loolu yëpp war a lu ko waral mooy ñun ñëpp daal ñu bokk si xam nga loolu moo ko waral waaye loolu du dara yaasin ñun <laughs> ñëpp ñu bokk si développement ni Gambie allah incha allah dañ ko def ok ñu ngi laa nuyu bu baax a so thank you very much yaasin good luck maa ngi naan ñaanal yéen ñëpp ramadan mubarak macha sa change Inshallah, inshallah. Okay. okay. Thank, Thank you, very much. Bye. Okay, bye-bye. Okay. Uh, kooku nekk na xale boo xam ne fii la doon mm-hmm. liggéey so after mu dem um, Europe mm-hmm. maanaam um, America mu faa jànga ñu ngi ko uh, jërëjëf fu mu nekk nii nag um, docteur ñu continuer affaire yi health bi parce que lu am solo la mm-hmm. parce que mu ka fu ñaame ni man jaate kenn yaa soto ita kuukee noo la aha and soto bi jam uh, ko karandi am na ñoo xam ne tam weeri koor dina leen dimbale spiritually spiritually nga xam nga the body is undivided mm-hmm. spiritual part physical part mm-hmm. environmental part they are all linked okay so di nga gis ne soo amee jaami xel dina la mun a eh, mm-hmm. indil jaami yaram tam Eh, so di nga te tamit di nga gis ne weeru koor ñu bari dañoo relax noppalu su ko defee fitna bi du bari. waaw ba pare ba socialisation bi tam daf ko dee encourage bu baax a baax. am su nit ñi defee li ñu war a def stress bi dina wàññeeku. Mm-hmm. so yooyu yëpp tam dina la dimbale pour sa sa yaram gën a dëgër.